Eh, mooy direct parce que li nga wax nii dafa am solo nit ñi ñu ngi lay suivre en direct yow mi nga xamante ni yow yow yaa fekke choc bi gars yi ñu ngi lay suivre direct noo fekk ma choc bi sax mooy man dama jógee ci dëkk bi oto bi jógee ci laa jóge di voyage dem Dakar bi ñëwee ñeem choc bi bi ñeemee choc bi noonu ndax dégg naa sax oto bu mag bi 508 bi oto lii la doon moytu mbaam mais li may lancé appel pour sénégalais yi ko bàyyi xel man soog bi mën naa ne ci laa ñi fi njëkk yem ci laa yem sama téléphone boo ko génnoon sama téléphone amul benn photo nañ invité di photo soog yi. gis nga amee dafa am ñoo xam ne sans ñu dimbali gars yi di photo. waaw man loolu ma mujj énervé ma wàccaat dem sama oto ma toog fa. ndax da ngay dégg ay xale ñuy yuuxu ñu sëb man am na xale ba nga xam ni dama dama yëkkati ay verre yëkkati xale bi seppi ko jox ko nijaayam ay jigéen am na femme ba nga xam ni. bi ma koy yëkkati ma koy yëkkati amul ñu taxaw foofu amul ku ñeme jàpp.

kon xëy na ñi ndax nit ñi dañoo waxante sauver dina am mais man daal sama xol neexul xam naa daal war nañ dimbale nit ñi ci yenn actes yi waaw bàyyi film yi bàyyi téléphone yeeg film yi amul njëriñ. voilà mi ngi noonu ngeen gis ni choc bi li ñu wax kii am na ko kii ñu doon laaj léegi bokk na ci ñi nga xamante ni ci ñi njëkk a yam ci choc bi la yow danga ko fekkee. waaw fekkee yow ni mu def ay 5 heures du matin ci la am quoi. léegi mais am na benn pas boo xam ne même chauffeur ba sax apprenti chauffeur apprenti bi génnagul ne quoi te itam xam naa bu ñu yëkkatiwaatee nii am na ñeneen ñu war a nekkaat ci suuf tax oto bi dafa féetee benn côté. oto bi. 508 bi da doon benn mbaam ci la dal ci sa ci camion bi mais mais ñi ci gaañ moom jigéen ñi moom. Oh, waaw léegi euh, mais. kii bi moom am na ku jigéen ci kii kooku rek laa ci xool ci jigéen koo xam ne kii da ko jigéen ku xees ku am doom bu ndaw bi kooku moom jël na doomam ba di ko kii ba di ko nàmpal chauffeur bi itam maanaam gaañu yaakaar naa gaañuwut nàccul quoi bu dee day damm day damm rek moom moom génn na bay wax waaw mais ñi ci ñàkk seen bakkan bari na bari na ñi seen bakkan ñoo ëpp. yow lim bi buñ ko xayma. man daal 15 yu ëpp na 15. 15 moom 15 moom ëpp na ko ci li ba gis ëpp na 15. waaw ëpp na 15 moom. voilà mi ngi noonu gis ngeen ambulance yi ñi ngi noonu di yóbbu ñi ngi noonu di yóbbu ambulance yi gars yi ñi ngi noonu di yóbbu euh, oto yi euh, bële moo choqué. xam nga dañu dañu dañu xaw a voilà vole moo choqué donc du ñu def rek lu